association des maires ci nga xam ne ci laa bokk waaye dama gis ne duñ ma invité benn yoon ci seen réunion yi nag di nuyu itam suma xarit Mamadou waaw maa ngi ne di jaar ci Arouna di wuuri bayloo Diallo président de l'association des euh, l'union de l'association des élus di remercier aussi représentant ministre Oulimata Sarr ministre de l'économie du plan et de la coopération te monsieur dem teewal ko fii remercier présidente de conseil d'administration ak président conseil d'administration ou conseil de surveillance yu fi nekk teew yëpp remercier directeur généraux yi directeur yi chef de programme yi chef de service yi ñëpp ñu nga xam ne agent bi gën a tuuti ba ci kaw ba ci secteur général jaar ko ci directeur de cabinet si seen teewaay bi fii di leen sant nag parce que waxtu yi mel nii nga xam ne dañuy xayma li ñu liggéey ci 2022 xool li ci li ci li ci ñaaw ñu defaraat ko li ci li ci baax ñu dëggal ko xool itti yan jumtukaay la ñu war a mën a am ba ëllëg li nga xam ne président de la république ak premier ministre xaar nañ ko ci ñun ñu mën koo gis ci ak aussi réew mi xaar ko ci ñun ñu mën koo gis ci suñu liggéey may rafetlu nag teewaayu assemblée nationale. assemblée nationale nga xam ne rôle am mooy contrôler li politique publique naka lañ ko doxalee di rafetlu liggéey collaboration bu ci am te loolu laa jàpp ni loolu ba la war a mën a nekk. Euh, lu nga xam ne député yi nga xam ñun ñëpp lañ fa toogal lépp lu ñu soxla ci ministère bi rafetlu naa li président wax ci samay service ma leen di féliciter ci loolu mooy diligence bi ak réactivité bi parce que loolu mooy mission de service public bu ñu am te maa ngi leen ci ñaax ñu gën cee taxaw mais aussi féliciter l'Assemblée nationale pour son rôle de contrôle en tout cas man bi ma nekkee ministre de l'urbanisme ba tey te nga nekk président de commission bi gis naa aussi sa taxawaay même ci liggéeyu commission bi gis naa taxawaay ci as plénière gis naa taxawaay aussi ci réaction yi nga xam ne à chaque fois bu ñu leen bu leen sollicité ma leen ci gërëm di leen sant bu baax a baax may wax ne rek man am naa satisfaction te satisfaction boobu président la République témoigné na ko premier ministre itamit renouvelé na ko à maintes ci liggéey bi nga xam ne collaboration bu ñu nekkee ma wax naa tous les jours bi man brassaru capitaine bi laa takk waaye joueur équipe de football il goxam ak ci liggéeyam bu ko jàppee ni mu ko war a jàppee kenn du soxla dara lu dul ñu ànd ensemble quelles que soient nos divergences quelle soit la pluralité de nos options ñu xam ne réew mi ñun ñoo ko mën a bokk damay fàttali toujours am na benn phrase mooy ñoom Moustapha Fall Thié président Moustapha Fall Thié nga xam ne communiste bu mag la moom dañ doon wax ni marchons séparément mais quand il s'agit de frapper frappons ensemble loolu laa gëm ci réew mi loolu laa gëm ci liggéey mooy bu ñu ku ci nekk bu amee ci yoon bu ñoree dóor nag nañ dóoradoo mun nañu xàcc ku nekk di xàcc mais dóor bi moom bu bu ñu dóoradoo rek amul lenn lu ñuy të ci ñaari programme yu nga xam ni président moom ci la ñu tënk ñaari programme yi gën a mag te mu tënk ministère bi yëpp muy programme zéro bi bidonville euh, maa ngi wax léegi léegi wuuri mais tanewu ma koy ne zéro bidonville nañ koy waxee ci ci wolof mais tanewu ma kon ñu yem ci zéro bidonville mu am déclin mu am déclinaison bu mag bu ñuy wax ci biir zéro bidonville programme bu ñuy wax cent mille logements cent nag bu ko waxee chaque fois gars yi dañuy foog ne ci benn at war nga mën a def cent mille logements mënut a nekk président fekk ci at bu nekk fii si Sénégal cinq mille unités d'habitation lañ na def cinq unité unités d'habitation mooy terrain yi ñuy joxe ak kër yi bu ñu xaymaa li HLM doon def li SICAP doon def ak promoteur privé yi ñu doon def lépp lépp lépp cinq mille la boo ci booree terrain yi président bëgg nañ ñu yóbbu ko ci benn at yóbbu ko ci vingt mille gaa balaa ngay def loolu nag dafa am environnement bu nga xam ne waroon nañ ko régler ba pare ah, environnement institutionnel environnement juridique moo loolu moo indi ñu créé SAFRU loolu moo indi ñu créé fonds pour l'habitat social loolu moo indi président jël arrêté def loo ko ministre des finances jël arrêté def ay ay ay wàññi wàññi taxes yi ñu def ay taxes sur le ciment di ko alimenter fonds pour l'habitat social environnement boobu yëpp bi mu paree bu mu yembee ñu war a dem nag di waxtaan ak promoteur sénégalais pour que ñoom tam ñu jàpp ci waxtu wu nekk nii signe nañu plus de vingt 23 convention ak partenaires sénégalais mais bu ñu xaymaa un an après am na yu bëri yu ci de c'est vrai promoteur sénégalais yi lu ñu lay wax ni way accès à la propriété foncière bi moo xaw a jafe parfois jafe-jafe yooyu parfois jafe-jafe financement parce que logement dafa cher mais yooyu yëpp exemple dimbali ñu aussi ñu jàppaat ci ba ñu ubbeeku ci au niveau étranger am ay partenaires maliens am ay partenaires yu nga xam ne Dubaï am ay partenaires anglais yu nga xam ne ci ay fan yu néew nekkatul léegi ay ay ay weer ay fan yu néew danañu commencé ci nouvelle ville de Thiès à une hauteur assez exponentielle te boobaa anne bu nekk au moins au moins danañ atteindre les vingt mille yu nga xam ni moom la ñu à partir de deux mille vingt bii danañ ko commencé au moins chaque année ñu am vingt mille logements mu war a nag une politique soutenue et structurelle bu war a mën a continuer loolu ci aspect la rek. aussi wax na ko am na Alexandre Ngom nga xam ni ci lay liggéey wax na ko en terme de planification urbaine bu ñu xoolee dëkk dëkkaat yu bëri fii Sénégal dañuy wax ni ñu ngi jiite ay dëkk amul benn instrument de planification urbaine bu ñu xoolee bi ñu ñëwee c'est on était à 13 pour cent 13 pour cent ci dëkk yu Sénégal commune yu Sénégal yu am ay plan am na ay capitales régionales ci Sénégal am na ay capitales régionales ci Sénégal ay capitales départementales ci Sénégal amul benn instrument loolu nag waxoon na ni nañ ci taxaw ñu taxaw taxawal benn programme bu ñu programme national de planification urbaine et de gestion des risques boobu itam ñu ngi ciy doxal ak euh, ministère de l' ci jàppale ci ay partenaires pour que au moins en en deux mille trente cinq ñu arrivé au moins à parce que quand même c' est un à cinq mu nekk ay koppar yu bëri yu ñu war a dajale. beneen bi mooy Sénégal zéro déchet boobu itam am nañ ci satisfaction loolu euh, président jël na UCG transformé ko en société nationale may remercier aussi assemblée nationale. parce que bi ñu indee loi buy transformer UCG en sûreté nationale à l'unanimité la ñu ko wote loolu itam xam ne de consensus national fu a amee ci assemblée nationale am na ko ci société yenn sociétés yi ci yenn projet de loi yi ci yenn proposition de loi ñëpp projet de loi bi nga xam ne président Macky Sall moo ko yóbbu assemblée nationale war transformer UCG en SONAGED boobu itam gis ngeen foofu unanimité moom foofu am na lu bëri lu fay lu fay dox mu amoon ay à côté benn projet bu tudd Promojet nga am ni partenaire technique ak financier accompagné ci ak état du Sénégal montant de plus de cent six milliards mu war a concerner deux cent trente huit communes te président ne woon nañ ko élargir aussi aux régions du centre la région de Kaolack la région de Kaffrine et la région de Fatick ñu ngi ci doxin boobu boobu itam day gën a jàppale communes yi gox-goxaat yi ba ñu am ay infrastructure infrastructure taxaw yu mën a gérer les déchets te war nañ am tey mbégte tey foo jëm ci Sénégal ci ni dëkk yi meloon tey xar dëkk yëpp soppeeku nañ ci cet bi loolu tamit ñu koy renforcer à côté direction générale du cadre bi di continuer def liggéeyam classique ses compétences régaliennes yu mu doon mu doon doxalee yooyu yëpp nag bu ñu ko boolee mu nga xam ni am na liggéey bu des am na liggéey bu ñu def bu baax mais am na liggéey bu bëree bëri bu des mais liggéey bi lu mu bëri bëri bëri bu des président ak lu mu ñu mën a wóolu ñun ñëpp ak doole bi mu ñu mënta jox ak koppar bu ñu assemblée nationale wotel te amul engagement amul volonté de servir ça ça ça ne marchera pas bu ñu amee engagement en volonté ça vaut plus que tous les autres milliards de l'Assemblée nationale ou des partenaires techniques et financiers si chacun d'entre nous y met du sien on arrivera à des résultats parce que chacun peut marcher comme il veut mais quand on marche ensemble on marche sûrement en tout cas maa ngi am ngërëmte tant leen bu baax a baax di leen féliciter ci seen présence je vous remercie de